wa ala kulli alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ihsaanin wa imaanin ila yawmi diin mbokk yu tedd yi nuy seetaan asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dellu siwaat nanu ak yéen ci sunu plateau bile ci sunu émission bii di al irshad tabaarakallahu nu sant borom bi ginnaaw bi nu leen nuyoo ziyaara leen tabaarakallaahu ziar sunu kilifa diine yi ñaanal itam ñi nga xam ne ñoo ñoo ŋànkal réew mi yal na borom bi jàppale leen ba fi nu bëgg yóbbu réew mi te muy fu ko jig yal na ko yàlla def te mu ànd ak tekki ànd ak tal ànd ak ay xéewalu yokk yal na ko yàlla def ñi jiitu ji tamit ci seen borom yal yàlla yeesal seen yërmande ñoom ñëpp tabaarakallaahu mu mel ni ci bind bi nu génn wax naa la ni la bi nga gëmee alimtu ann rizqi lan yaxudahu xayri fatma ann qalbi ma ni la lu loolu bu la arrivé gëm gum la gëm ni sunu boroom li mu dogal ci yow ci wàllu wërsëg kenn mënu ko nangu kenn mënu koo joggati yow rekk ak wërsëg woowu kon lu fi jar ñaawal doomu dafa am lu mu war a xam mooy wërsëg wi ko yàlla di jox fi ko yàlla teg même bu nekkoon wërsëg wi dafa nekk gaynde yanu ko di nga ci jot walaw fii jëppatil asad bi da nga ci jot moo tax sang bi nee na sallallahu alayhi wa sallam la yatiyanna ala nnaasi la yatiyanna ala nnaasi zamanun laa yubaali lmar bima axada almaala bima axada almaala am min xalaalin am min xaraamin sang bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jamono ngi ñëw ba mu koy wax nag mu ne jamono ngi ñëw nit ñi alal dina leen yegg foo xam ne pour ñu jot ca alal jooju du ñu seet nu ñuy def ba am du ñu seet lii dagan na pour ñu jël ko du ñu seet ne lii araam na ñoom daal nañu am rek seen yoon ci dagan seen yoon ci araam te boo demee ci suuratu zaariyaat yi wa zaariyaati darwan ci aaya 58 bi borom bi nee na wa maa xalaqtul insa wa maa xalaqtul li yaabuduun baatu binduma nit ak jinne illa li yaabuduuni lu dul ñu jaamu mooy bu gën yaatu bi mais lu dul ñu xam lu dul ñu xam ibnu ata noonu la ko fiire illa li yuarrifoon pour ñu comprendre nit li tax yàlla di bind ko pour mu dégg gis nga li benn rappeur di wax naan bu subaa ngay comprendre am na benn rappeur bi wax loolu naan bu subaa ngay comprendre est-ce que du fekk mu tarde soo toogee bu suba nga doog a dégg te suba yàlla mooy àdduna bu tukki bu fekkee suba ngay comprendre boo comprendre suba tardé na moo tax teel a comprendre mu am solo yàlla dafa bind suuf bind gàncax bind ndox bind doomu aadama suuf si service su kan la nekk suuf si mi ngi ci service ñax yi ñax yi suuf ci servisu ñax yi la nekk ñax ci servisu kan la nekk ci servisu rab yi animaux yi seen service la ñax di dox ndox ndox nekk ci service suuf mais yooyu yëpp muy suuf muy ndox muy ñax muy animaux yi service su kan lañu nekk ci service su doomu aadama allahu akbar suuf servisu doomu aadama ñax servisu doomu aadama jur gi servisu doomu aadama ndox mi service doomu aadama mais doomu aadama nag service kat xanaa service yàlla illa li yaabuduuni sunu borom ne doomu aadama bul sonn bul sonn ibna aadam xalaqtu laka maa fi samawati wal ard min ajlik li ma bind ci asamaan si ak li ma bind ci suuf si c'est-à-dire dégg ci ni li nekk diggante asamaan ak suuf loo fi gis pour doomu adama la oh xoolal yàlla li mu defal doomu adama bind naa asamaan la fa nekk li nekk ci diggante bi suuf ak li nekk ci biir suuf pour kan la pour yow la xam nga bi ko yàlla waxee ne ko xalaqtu maa fi samawati wal ard min ajlika fala tatab yàlla ni bul sonn bul sonn baato bul sonn li ma def àdduna bi yépp pour yow la bul sonn kon daw bi ngay daw dang-dang gi gas reen yi bind xalima yi fas xànc yi liggéey nit gàddu jaasi agressé ko génne fetal fetal nit cambrioler kër jàmbur défoncer compte jàmbur sunu borom nee na bul sonn bul sonn lépp pour yow la asamaan bi bi ci suuf li fi nekk du pour kenn pour yow la fala tatan mu ne wa xalaqtuka min ajli fala talab maa la bind du pour xar yi du pour ñax mi du pour ndox mi du pour suuf si du pour leneen dama la bind pour man pour man non bul foo bul foo oh parce que yàlla dinaa di dégg alaaji Pape di ko jàng lu bari aaya boobu afa hasibtum annamaa xalaqnaakum abathan yàlla na yàlla fay ko yiw da koy jàng lu bëri Pape yàlla mooy wax ni am jot am jot taxul ma bind la am jot billaay ko xool doomu aadama ni ko yàlla bindee nga commencé ci bopp bi ba ci tànk bi nga xool ko waxuma la nga xool cëri noonu de mais li yàlla diigal ci doomu aadama ci xeetu xam-xam boo ko xoolee xam-xam bi nekk ci doomu aadama ak kéemtaan bi nekk ci doomu aadama yàlla bind doomu aadama mu nekk monde ci biir monde kaw nun fii kaw dunyan fi dunya seetal wa tazamu annaka jurmun sagiru wa tazamu annaka jurmun sagirun wa fiika ntawa alaalamu akbaru xamuloo ni lépp li am si monde bi ni univers bi yàlla fexe na ba delloo siwaat na ko ci yow est-ce que àdduna bi amul dënu am na dënu yow dangay ngay jékki nga dënu parce que da ngay jékki bi nga sëqat yàlla delloo siwaat na ko ci yow pour wan la ne bul xeeb sa bopp nga jékki ba mu yàgg asamaan si melax sa kanam melax bis boo bégee melax nga asamaan si xiin boo meree xiin na soo jooyee taw na seetal maanaam li yàlla def ci àdduna bi mu la koy fàttaliwaat wa fii anfusikum wa fii anfusikum loolu yàlla def kéemtaan yooyu ma def ko ci yow ne la maa bind lépp pour yow bind la pour man li ma bind yépp pour yow bul sonn li ma la bind pour man bul foo mais mu wax la beneen baat mu ne fa bi xaqi alayka an laa tatashagala بما ضمنته بأن لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك mu ne li ma séq yow mooy li ma gàddu ci sama loos man sunu borom te waruma mais maa ko warul sama bopp mooy li ma la gàddul bu la yitteel li ma la sant na li ma la gàddul bu mu la yitteel li ma la sant na la yitteel oh xëy suba teel di daw sama benn baay yal na yàlla yokk leeram mu ñu koy wax Alaaji Moodu Kan ku bëri woon xam-xam la te baax te mën jàngale mooy wéy juru Ayda Patara sama baay boobu da doon wax ni sooy dàq loo dul dab sooy dàq loo dul dab bu mu tee soo rembee ndaa nga naan te continuer sa course maa ngi koy baamtu sooy dàq loo dul dab bu mu tee soo rombee teen walla ndaa nga naan te continuer sa course loolu lu ëmb lu bari la àdduna bi kenn du ko jeexal yu baax yi yombul ci àdduna bi kenn du ko jeexal nga topp ci àdduna di dang-dangi nag boo rombee mbaax fenn taxaw fa ut fa tuuti yiw continuer sa course comme àdduna du doo ko dab mais boo rombee mbaax ut fa mbaax loolu mooy boo rombee robine bi mbaa teen bi mbaa ndaal yi tànqal naan te continuer sa course mag ñi noonu lañ doon jàngale yàlla wax nañu ni li mu nu gàddul ba mu ñu sonnal li mu ñu teg na nu sonnal lan lañu teg mooy lim ñu sant ci wàllu jàmm ko ci wàllu topp ko ci wàllu déggook moom xar day li ko yàlla sant nangu na ko ñax yi li leen yàlla sant nangu nañu ko ndox mi li ko yàlla sant nangu na ko suuf si li ko yàlla sant nangu na ko mais nun nag est-ce que déglu nañu sax kàddu yàlla bay nangu lim nu sant kon ci nun la des beneen bi yàlla waxaat ci xadisul qudusi mu waxaat même façon bi mu ne moom moo bind asamaan xalaqtu laka maa fi sama xalaqtu laka samawaat wal ard walam aaya bi xalqihinna maa bind asamaan si bind suuf si te sonn ci te ba ma koy def yaa tax maa bind asamaan si bind suuf si te sonn ma ci te yaa tax yaa tax te doomu aadama su gore woon su gore woon lu ko yàlla sant du bàyyi da cay nekk rek mais gore di gi moo fi nekk borom bi nee na bind gi mu bind asamaan bind ko suuf te nga tax mu ne est-ce que mu indil la mu indil la benn daggu mburu jafe na ko kii def asamaan def suuf ne la dinaa la indil loo lekk dinaa la indil loo lekk soo xoolee ci def gi mu def asamaan xool def gi mu def suuf war nga xam ne indil la loo lekk gi tewu ko retenir loolu loo naratee sonn rek lee jarul ma koy sonn yàlla gàddu na ko te dina ma ko indil borom bi wax ni am na lu ma la sant muy ay farata lii alayka faridatun walla laka alayya rizq fa ida xaalaftani fi faridati lam bi nee na maa gàddu wërsëg wi maa la sant jaamu gi soo lànkee ba li ma la sant defoo ko man li ma warlu duma ko ñàkk a def oh est-ce que mosoo dëkk ci dëkk mbaa nga xam koo xamante ba nga ko xamee ba léegi mosul su yàlla seetal sa mës nga xam benn jaam boo xam ne ba nga ko xamee ba léegi mësul su jootal yàlla seetal est-ce yàlla mës na koo xañ benn bëccëg wërsëg yonent yàlla Ibrahima dafa am benn bës mu am kenn ku ñëw di seet si yonti yàlla Ibrahima ñëw ci kër yonti yàlla Ibrahima nuyoo Ibrahima fay ko waa ji ne yonti yàlla Ibrahima xamul ne yonti yàlla Ibrahima la de waa ji dafa jaaxle rek ñëw ci moom ne ko damay dox di tukki ba guddi dab ma ma ñëw di laaj est-ce que desel ngeen lal bu kenn tëddul ngeen abal moo ko ma fanaan ci est-ce que desal ngeen kolkolu cere kolkolu cere bu kenn jëfandikoowul ngeen baaxee ma ko ma jëfandikoo ko desal ngeen lal bu kenn tëddul est que desal ngeen kolkolu cere bu kenn lekkul ngeen may ma kolkolu cere bi ba lekk ko ngeen abal ma lal bi ma tëdd ci bu subaa ma continuer sama yoon yonent yàlla Ibrahima ne ko a anta minal muwahidin est-ce que dangaa bokk ci ñi gëm yàlla waa ji ne ko luy loolu luy loolu man damaa xam affaire yooyu yéen ci àll Ibrahima ni ko man nag ku gëmul yàlla du lekk sama ñam du di sama lal waa ji ne ko yow yàllaa la gën mu ne ko ah? mu ne ko dund naa soixante-douze ans waa ji ne yéen ci àll Ibrahima dund naa soixante-douze ans yoo xam ne fàtte ma fi fu ñuy defale kooku ngay tudd dara ma bokk ca te lépp li ko waroon ci man mi ngi ci yonent yàlla Ibrahima dégg xam ni lii cax la xam ni lii cax la doo lekk sama ñam parce que julliloo yàlla te yàlla mi mu ñàkk jullil yàlla nga koy jox ñam wi soixante-douze juróom ñaar fukki at ak ñaar yàlla nga koy dundal te musu koo jàmm parce que yàlla du workat du workat maanaam du trahir du tas yaakaar du fecci kóllëre du du du du du du ñàkk respecté li mu waxanteeg nit moo tax li mu waxanteeg yow jaamu ma boo ca nekkee baax na moom li mu gàddu ci loosam mooy mu dundal la te mi ngi ci bi ci des mu ne wa izzati wa jalaali wa izzati wa jalaali in lam tarda bi ma qasamtuhu laka fa la usallitanna alayka dunya tarkadu fiha rakda alwaxsh fi lbariya mu ne maa ngi lay assureel nag maa gàddu sa dépense sant naa la jaamu nanguwuloo li ma war maa ngi ci mais il faut nga nangu leen yàllaay wax de mu ne il faut nga nangu leen li ma la sédd na la doy ah li ma la sedd na la doy li ma la sédd ci wërsëg su la doyul su doyul ba ngay dem di wuti leneen lu ma la seddul nar ngaa sonn yàllaay wax de li ma la sedd ci wërsëg na la doy li ma la sédd bu la doyul nar ngaa sonn nar ngaa sonn dinga nga dang dang suba dang dang ngoon dang xamuloo am na boroom kër yoo xam ne boroom kër yoo xam ne dalatuñu ci seen kër fanaanatalu ci seen kër seeni njaboot sax gisatuñ leen déggatuñ leen ndax cinq heures du matin fekk na ñu génn vingt deux heures yu fekk na ñu ñëw boo leen waxee dañ ne dañoo am yitte te nit ñi xàmmeewuñu yitte yitte bu dellusee ci àdduna tuddatul yitte maa la ko wax yitte bu delloo ci mbiru àdduna rek tuddatul yitte parce que mbiri àdduna yi sa yoon newu ci yàllaa ko yor yàlla sedd na yenent bi daf na ko jàngal jàng bu gàtt bu leer dafa ni jëkkër ak jabar bi ñu tëddee tëddu bànneex jëkkër ak jabar bi nu tëddee tëdd bànneex jëkkër di éjaculer di indi ndox jabar di indi ndox ndox moomu balaa dugg ci utérus bi jibrilu dina ñëw dékkandu ko ci benn kook koog yóbbul ko sunu borom ah maa ngi wax lu garaaw ndekete fu góor di tuure ndox ci kaw jigéen balaa moo egg fa mu jëm jibril dina ko dékkandu yóbbul ko yàlla lew na yaa xam lewul yaa xam mais tànk yaa ngi éjaculé jibril dina ko dékkandu yóbbul ko yàlla yàlla xam na ko de mais dana ni jibril li nga indi lan la mu ne ko sa jaam bi tudd nàngam ak sa jaam bi tudd nàngam ñoo jaxasoo ndox ma ca génne moom laa la indil mu ngi nii moo xam paa dem nañ jàkka ja wala demuñ jàkk ja moo xam dem nañ église ba wala demuñu eglise ba foo ndox moomu daal moom tant que mi ngi génn génne retenir li may wax de tant que ndox moomu génn na jibril dëkkandu na ko yóbbul na ko yàlla su fekkoon ni yàlla daf ko daf ko fekkewul woon su ko yëgul woon su ko xamul woon am na information bi rawatina bi nga xam ne yàlla dara échappé wu ko laa yaxfa alayhi shay'un inna allaha laa yaxfa alayhi shay'un fi l ardi wala fi sama yàlla nee dara échappé dara échappé wu yóbbul ko liquide bi ci la borom bi di wax ni liquide bii ngeen ma indil ci lay jël décision yi bind li mu war a bind wala mu ñàkk bind li mu war a ñàkk bind ci lay wax ne ndox mii ngeen ma indil dinaa ci bind doom wala duma ci bind doom moo xam doom bi ku ñu takk woy juróom la wala ku ñu takkul woy juróom la ci la yàlla di jël décision boobu ci lay jël sax décision est-ce doom boobu noonu dana judd wala du juddu ci lay jël est-ce que dana dund wala du dund ci lay jël décision est-ce que dina am wala du am dina bëri la du bëri la dina xam du xam yépp ci moment boobu la ko yàlla di dogal doo koy wax jibril demal delloo ko waaw ndegam nag yàlla li mu la sedd note ko ne yaa moom nangam jooju soo ci d'accordul yàlla nee na xam nga nu may def dama lay teg coono dama lay teg coono nga dëkke dang-dang di sonn te doo am di sonn te doo noppalu parce que lii la yàlla sédd doyluwoo ci moo tax mbokk yi baat bu am solo la baatu doylu baat bu am solo la euh, bari na nag koo xamante ni kii dana tudd doylu dana tudd doylu dana dégg doylu dina gis ñuy wax fu ñuy waxtaane doylu mais moom du doylu te doylu boobu moom la ñu soxla nit def ko gis nga boo doyluwul dangay sonn ci sa dund sonn ci sonnal ñi nga nekkal sonnal sa bopp sonnal àdduna bi parce que li la koy teg mooy doylu woo yonent bi nee na alqanaatu retenir alqanaatu maalun laa yanfadu xamuloo kii doylu ki doylu loo koy jaay du ko saf ki doylu moo tax wolof di wax ne boroom ŋàdd yëgul boroom pañe dañ ci nëbb borom ŋàdd bu ŋàddam doy faalewul boroom pañe te doylu yomb na xam ne xam lan mooy ki nga xam ne salaire am cinquante mille la mu canaliser soxlaam ci trente mille déggoo ma de ki salaire am nekk cinquante mille mu canaliser soxlaam ci trente mille kooku moo doylu parce que am na marge vingt cinq mille vingt mille mën na maye mën na leble mën na économiser kooku doylu mais ki nga xamante ni salaire am cinquante mille mu am soxla deux cent mille xam nga ni kooku dootul yendal dootul fanaanal dootul def dara dafa muy mujj mooy gàddu jaasi mbaa gàddu yet mbaa wër di ss suul fii sulli fale ss yal nañ ci yàlla musal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wax ko loolu ci xadisul qudsi bi te bu la yàlla séddee te li mu la sedd doyu la fa ngay mujj mooy yàlla jéppi la ba noppi bu la yàlla jéppee li yàlla bëgg loolu mooy am li yàlla bëgg loolu mooy am li yaa waaj rapport bi di wax naan bu la yàlla rëddee bu yàlla rëddee nga bañ dalay far rëddaat yàlla du la far rëddaat sa kaw bàmmeel lay rëdd te rëdd boobu kenn dootu ko far li yàlla bëgg rek moom mooy am kon nag nanu nangul yàlla li mu nu teg su ko defee li mu tegoo moom mu tegoo ko ñu doylu ko benn bindikat dafa wax ne laa taxdaan li maxluqin ala tamain laa taxdaan li maxluqin ala tamain fa inna dalika naqsun minka fi diin xamuloo dara gënul ñaaw dara gënul ñaaw gor jaay ngoram dara gënul ñaaw gor su ñàkkal bopp fa faydaam ngoram ñàkkal fayda juddoom ñàkkal fayda boppam fëgg buntu koo xamante ni kii fëgg bunt koo xamante ni kii waroo woon fëgg buntam gis nga ñëpp léegi xam nga ban ban façon lañ jël mooy bu ñu amee bu ñu amee soxla wax ko yàlla tàllal seen loxo ne ko iyyaka naabudu wa iyyaka nasta'iinu yàlla yebal ku gaaw a gaaw mu régler sa problème te doo fëgg buntu kenn am na ñoo xamante kenn du leen gis ci bunt kenn ñu koy fëgg parce que bu ñu fëgg buntu yàlla la ñuy fëgg yàlla yebal kenn mu ñëw ah mbokk ñu ñaan sunu borom ñun ñëpp mu def ñu ñu gëm te wóolu te sant ko te nangoo taxaw ci ay santaaneem moom it li mu war mu def ko du ñu teqali ko te ñaanalante wunu ñu jëkk a ñaanal sunu mbokku caméraman yi parce que bu lii yembee ba ngeen mën ñu gis seen liggéey la yal na yàlla barkeelal leen seen liggéey ñaanal ñu yor lumière yi ñu yor son yi ñëpp yàlla defal leen tawfiq